asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara di rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool te ak wér ñaanal ko mbooleem kilifa yëpp mbokk yi ñu ngi fii ci daanu Poroxaan bu ngeen gisee jumaa ju mucc ayib ji nekk suñ ginnaaw ngeen xam ne liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir moom la doon liggéey ngir yeesalaat jumaa ji nga xam ne moo nekk ci daanu Poroxaan te nekk jumaa joo xam ne Cheikh Moustapha Bassirou magam ju tedd ja yal na yàlla yokk ay leen taas ci barkeem moom moo ko fi taxawaloon liggéey bi nag dem ba toll foo xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir nekk xalif waa kër Cheikh Mouhamadoul Bachir taxawaat ngir yeesalaat liggéey bi kon loolu ñu mën ci xamee ne sëñ bi ba ñu tàmbalee liggéey bi nekkagul woon xalif général des it ñu tàmbali ko ngir yeesalaat li nga xam ne moo di jumaa ji liggéey boobu nag mu ànd ceek mbooleem njabootuk Cheikh Mouhamadoul Bachir gi ak mbooleem taalibe yi mu jaraloon ko lu ne liggéey boobu it yàqalu ko woon lenn ci li nga xam ne muy addiya ji nga xam ne moo daan dem ci liggéey Serigne Touba bi ci jamono yooyu muy liggéey Masalikul Jinaan nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir taxawaay bu am solo la ci amoon ak mboolem addiya yi nga xam ne mu ngi ko ci daan def ba ci liggéeyub jumaa ji nga xam ne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram te taasu ci barkeem moom moo ko tàmbali woon mu jëm ci ñaari sooroor yi nga xam ne sëriñ bi saa su ne addiya mi ngi ci doon dem loolee nekk loo xam ne lu am solo la waaye nag sëriñ bi li nga xam ne moo di chantier bu mu tàmbali woon àndoon ak liggéey bi ni ko waxee sànq ak mboolem njaboot gi ak taalibe yi liggéey boobu mat mu nekk xalif général des mourides mu fas yéene ubbi incha allah ni aljuma ñu ñëw fi nag fas yéene ànd ak yéen wan leen lépp loo xam ne moom moo nekk ci jumaa ji ginnaaw bi ñu ko liggéey ba mu noppi mu nekk liggéey bu mucc ayib lool image yoo xam ne yu am solo la muy intérieur bi ba si extérieur bi gis ngeen esplanade bi tamit ni nga xam ne noonu lañ ko liggéeyee mu nekk liggéey boo xam ne def nañ ko ak qualité mu méngoo ak jamono lépp rek ñuy wane ne àq gi nga xam ne sëriñ bi jox na ko lislaam waaye sëriñ bi ñor gi nga xam ne diine ñor na ko kon mbokk téléspectateurs yi ñu fas yéene ànd ak yéen wan leen li nga xam ne moom moo di jumaa jumaay Poroxaan ginnaaw bi ko Cheikh Mamadou Mountakha ba si liggéey ba mu àgg intérieur ak extérieur bi bi noo ngi deeti ñaan faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ci musa mi nekk marwata ak safa ak aqi am di musa ndax yàlla naatal xarnu bi ak aqi mboole may rakam ak aqi seen baaye ñoom ak aqi cheikh ya bambam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 buural te boot nu ngal daam roggi nu mboolem xërnu bi bal doom yi yépp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku mënta boot nga jox ko mboot ndax yàlla naatal xarnu bi dafa murid yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo dolli sunna ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla am di tabax jumaa yi bam tol ne marwata ak ndax yàlla naatal xarnu bi mbooleem murid yépp ngi jooy ngir lu ñu bay mu daldi di gooy bu seene diyaa booy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 sëriñ bi geesul xarnu bi tax na ña daa joxe ngi laaj ñii jàpp seeni sas di xaaj kenn dootu dem fenn ba waaj bi geesul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi bakkaar bi tax na cër yi tuut ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi geesul xarnu bi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 daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga saqi xarnu bi sërmandeenu daa defal lu xel da jul daanu fabal daanu tibal daanu leyal reggal nga mbooleem xarnu bi sërmandeenu daa sanal jigéen ñi yaa ñu daamal tey ñëppayam kenn amatul waaye mbàkke jeesul xarnu bi sëriñ bi jeesul xarnu bi ñoo seeni sag saggiku na ñoo seeni gaay daggiku na ñoo seeni ngëm rékkiku na ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moo ne ndax mu tane daaw muy gën a far dellu gannaaw barab yu waay sax dinaaw ay mbàkke jeesul xarnu bi ay e mbàkke jeesul xarnu bi wuy nu ni wuy noo ko torox wuy nu ni wuy noo ko torox yelwaana mu kula sarax garab bu daanoo xob yalax bambaay ndaa njaama xarnu bi garab gu mag bu ne jirim garab yu ndaw jirim meññeen ma mbir maalem lii rek kadal waa xarnu bi allahu akbar allahu akbar allahu akbaru moo mën a safaan xéewal yi daf daa wala nga ci dabi booleem xarnu bi allahu a safaan xéewal yi daf daa wala nga ci bi libéeg chike ki sof xaraan lan daa diwoo muy wala xelli kopp ya watay korne xarnu bi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim tuub nanu lan daa defi ko te muy lu neexuloon borom njur belewute xarnu bi xéewal yi daf daa walwal yi ba woon ci nun di kel keli moo tax mu jug di pel sëriñ bi geesul xarnu yi xéewal yi daf daa wax seen nga wute nga ak seyaan xamu xurëg dund ak seyaan sam ndoxa mandal xarnu bi wàcc nga yow la masa wax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax séddoon nga mboolem xarnu bi daawoonu nax daawoonu ñaax séddoon nga mboolem xarnu bi daawoonu nax daawoonu ñaax séddoon nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar kenn wuddatul moo tax ma naa la suuxatal njëmbat li waan ci xarnu bi njëmbët li mooy gaa yi di ko woon daaw ci yi fi woon tey ñi ngi def yeñu bon ngir ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkk a bon ci waaju baax ak ñàkk a bon ci waaju baax day tas këram xalam di jaax daa ceebu tey ngay yañelaax daa ceebu tey ngay yañelaax jaaxal na mbooleem xarnu bi léeg-léeg nga gis fii am murit muy taxawaalu ne mërit wala mu xàcc def turit ndaw njombe gaañi xarnu bi ànd ak commerçant di jaay ñii di wajaa seri baqaay te ne yaa doon sunu baay moo nga naatal xarnu bi te ne yaa doon sunu moo nga naatal xarnu bi ñi leen ngi xàcc defi chef ñii defi dàkk ngir bañ a loof ñii daw baraw dey nu xiif moo tee nga naatal xarnu bi borom Tuuba moo tee nga naatal xarnu bi moo tee nga yaakaar abada ngir yaa nu tàggaleeg bi daa tuum nanu mbooleem lanu daal bakkaar ci xeji xan wi yërëm nu tey yaru nanu dootunu foox xammi nanu dootu nelaw yew nanu yërëm nu naatal xan wi ram tuuba yërëm nu tey yaru nanu dootunu foox xammi nanu dootu nelaw yeewu nanu yërëm nu naatal xanu bi joxoon lanu yoroon dootu nu def lanu defoon xanaa yëgoon ni yaru nanu weddi laajal xanu bi joxoon lanu yoroon dootu nu def lanu defoon xanaa yëgoon yaru nanu weddi laajal xanu yërëm lu nan torox lu nan jooy nanu ren saraxtu nan soppiku nanu jébbalu nanu sarax nu naatal xarnu bi ram Tuuba sarax nu naatal xarnu bi yërëm lu nan toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu soppiku nanu jébulu nanu sarax nu naatal xarnu bi nun toxu nan sun këri baay gàddaay def la sunu baay tuuba di bamba di sëriñ bi geesul xarnu bi tuuba di bamba di sëriñ bi geesul xarnu bi murid yi saali nanu ren ngir xam ne yaa leen amewoon yaa leen joxoon lanu yoroon yóbbu nga booti xarnu bi yaa leen joxoon lanu yoroon yóbbu nga booti xarnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem pëlëg naar ak wolof kenn gisatul ko ami yëf sëriñ bi geesul xarnu bi koo xam ne daana mi jaag daami angaare ki jóg mi at mu am déen mu jeeg sëriñ bi geesul xarnu bi ku ma yaari wata soxla na ren ji ñaari moto te mën taam njëgu moto sëriñ bi geesul xarnu koo xam ne daana mi taax tey mi ne ngee ne bu baax bu gën a bam na ca faax sëriñ bi geesul xarnu bi bu gën a féex bam na ca faax sëriñ bi jeesul xarnu bi kër yaa ngi wéet ba ñu wéng lal yu ñoroon defi korom kër yaa ngi wéet ba ñu wéng lal yu ñoroon defi korom ñoo e dooni wuur defi koyom sëriñ bi jeesul xarnu bi tubaab bi sax perte nañu ñi leen nit perdi nañu yahuud yi sax fayit nañu moo tee nga naatal xarnu bi tubaab yi sax perte nañu tubaab yi sax perte nañu ñi leen gëmoo nit perdi nañu yahuud sax fayit nañu moo tee nga naatal xarnu bi ñu tukki woon far nañu lam fun jubli dee si leen falan adduna yaa kanaawalan sëriñ bi jeesul xarnu bi ñu tukku woon lan fuñ jublu dees leen falan adduna yaa kanaawe leen sëriñ bi jeesul xarnu bi naar yaa ngi yalwaa naka xeer cheikh bun xamoon dellu fajar kenn taletul loo joxi naar sëriñ bi jeesul xarnu bi wuy mbàkke yuuxu ba deewallu nu boo yeexeenu dee melel ne kuy ramu ku dee yaanu tinul waaxin wi mbakke yuuxu nan ba deewal nu wi mbakke yuuxu nan ba dee yuuxu nu boo yeexenu kuy ramu ku dee yaanu tinul waaxin wi yu Mbàkke yuuxu ba dee wàllu nu boo yeexee nu dee melal ne kuy ramu ku dee yaa nuy tinul waaxar nu bi Cheikh Muntaxa Mbàkke yow yaay danay Muhammadu Cheikh Muntaxa Mbàkke teer nga booti Hamidu man nga defar waaxar nu bi